tey dafa yeewu ne ma damay euh, dëggal sama bopp ci octobre rose bi moo tax su may solu damay wane ne que ne ah ci suñu weer la ñu nekk te weer wi faaw ñu sensibiliser ci noonu laay def daal di koy nuyu la belle Yacine. fay am nañ mbégte dalal la. merci beaucoup plaisir partagé. ma bàyyi la sa xarit. Paasan wala Paas nuyu nañ la <laughs> boo wala Paas. Baye Assane. Ah. Ah, kon boog Baye Assane. bokk li muy naan bokk yee bokk yee <laughs> Baye Assane na <laughs> kon bokk mbokk yee mbokk yee Yacine ak seen. Ah, waaw <laughs> nuyu naa bu baax nuyu suñu téléspectateurs yi nuyu également suñu ay internautes ñu leen fàtte benn yoon ñoom ñoo ñu dolli suite suñu ay réseaux sociaux dalal leen jàmm ci seen biir rubrique Zapping Digital. tey loo ñu indil des bon des mauvaises nouvelles intermédiaires. lépp a ngi ci biir lépp a ngi ci biir fu ñuy fu ñu njëkk dem ci teer bi dañuy jël terre bi voyager. waaw dañuy jël terre bi voyager. Ah. waaw daal di cëpp. wax ci euh, li nga xamante ne perturbation yi nga xamante ne terre bi am na ko depuis le 25 septembre. Mhm. bee ñu weesu ak taw yu métti yi nga xamante ne amoon na ko fi. kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi nag di El Malick àdduna si mais également wax na ci perte bi nga xamante ne maanaam limu xaalis bi nga xamante ne perte nañ ko si mu war a toll ci 700 millions dañ koy teewlu daal di ñëwaat. aywa. Ces derniers temps, nous avons connu quelques incidents au niveau du trafic euh, du terre. Je pense que les équipes ont assez communiqué de manière transparente et bien phasée sur tout ce qui s'est passé. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, dire la vérité euh, aux Sénégalais, aux usagers, parce que c'est un incident qui est arrivé. Mais il faut rappeler que cet incident-là découle un peu, en tout cas, d'une euh, peut-être vision biaisée ou, des malfaçons euh, dans la conception, parce qu'il s'agit d'un poste de, gestion de système de sécurité qui a été tout simplement construit dans un point bas. Un point bas à risque où l'inondation, c'est de manière courante. Et ils l'ont fait sans protection. Donc, les équipes ont pu faire une protection. Bon, chaque année, il y avait une, euh, une inondation jusqu'à un certain niveau d'eau, mais cette année, quand même, euh, ça a atteint 113 euh, euh, cm si je me trompe, ce qui fait qu'on a perdu le poste, toutes les composantes, parce que c'est de, de matériel très sensible c'est comme si on prenait 700 millions de francs CFA. El Malik Ndiaye lañ doon dégg mu di euh, ministre bi nga xamantane ne moom la ñu dénk wàllum dem ngeeg dikk gi waaye loraange yi mu wax ci teer gi. Mhm. Yacine bari na de. bari na lool te dafa feeñ sa carrément ci circulation bi mhm. rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo daan jël seen oto dem gaare ko ci parking bi yéeg ko léegi defatuñ ko parce que boo doon xool wax na ko sa si élément bi euh, li nga waroon def 45 euh, minutes wala ay ay waxtu kase pour nga yegg léegi da nga ko def. wax toog lu topp donc loolu nag mu nekk ralentissement bu baax ba te wax na li nga xamante ne moom moo ko indi muy post bi nga xamante ne moo nekk Rufisque foofu la ndox bi envahir ba mu yàqu nag booy xool war nañ see def li mu 700 millions pour mu mën a réparer waat mu nekk impact boo xamante ne terre bi impacté na ko maam xujja sénégalais te yëg nañ ko bu baax ces semaines là sénégalais yëg nañ ko bu baax ndax euh, terre bi mi ngi transporter ay junni junni doomi aadama bés bu nekk ñooñu ñëpp euh, dañuy yëg bu amee paan wala jafe-jafe yu ni mel waaye nag dama lay bàyyi nga wëyal ak ñun ba tey ndax euh, yaa ngi may wax que ne am na beneen jafe-jafe bu am fa fële ca mbuux jëm ci wàllum concurrent bi waa concurrent yi comme ni ñuy waxee rek comme période bu vacance lañ nekk dañuy gis lu bëree bëri dañu daal ji génn euh, surtout nag fi ñu koy gën a ràññee euh, fii ci côté yi mooy ca diwaanu Mbour mais cette fois yi nag dafa am benn vidéo boo xamante ne dafa viral mu benn kankuraa boo xamante ne dafa doon dox ci guddi gi noonu gis benn lampe daal di koy euh, attaqué mën nañ ne jël jaasi bi rek dóor mu daal di yàqu et nag loolu di ay dégâts yoo xamante ne internautes yi ak askan wi rafetlu wuñ ko benn yoon ci gis-gis en plus de saa gis nañ semaine passée également li nga xamante xamante ne moom moo xewoon ci euh, nekkoon génnoon jour de la semaine te ñoom nee nañ weekend lañ ko daan faral di gën a gis d'après xibaar yi nga xamante ne Dakar ak génnee na ko te nag jot nañ fa saccagé yenn ci ay euh, bërëb euh, jàmbur kër jàmbur ak tamit gaañ fa ay doomi aadama Mame Khoudia mu nekk loo xamante ne nag ku ci nekk ak ni nga koy gisee mais ñoo ngi woo également les autorités ñu jël si matuwaay yu baax ndax gis nañ ne at yi weesu tamit doon nañ leen tere woon nañ leen sax ngir kankurang yooyee daal ji génn nagam violence la <coughs> gis jamono ji ñu koy indi Mame Khoudia ci réew mi mu doon euh, lu doy waar loo xamante ne euh, ah ñu ngi koy gis ay yàqu yàq yoo xamante ne day yaakaar naa ne ko amul waroo yàq mm-hmm. waaye nag xam naa baasan dina ci àddu ci kanam tuuti tuuti am beneen mbir boo xamante ne tamit mu ngi yàq yaram yi mm-hmm. jëm ci wàllum xeesal baadoo xeesal rek maa ngi dégg sànq ruuj di la ko laaj. <laughs> tey naturel rek lañu yàlla jox rek lañuy lañuy la ñuy maintenir. kese. Mhm. ñu wax maam xujja ci xeesal yi ak ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy defar lépp les yi ñoom xam nañ ne euh, baaxul ci yaram yi baaxul ci seen wérgu yaram te dañuy teewlu kenn si ñoom nga xamante ne moom mooy defar diw yooyee moom si jumpoom moo ko waxal waxoon dañ koy teewlu daal di ñëwaat. aywa. xanaa xam ngeen loolu. man maa leen ko wax tay pour yéen ngeen bàyyi ci xel jiw yi day joxe infection barke Seydina Mouhamed gis nga man ba ma ko amee mu metti loolu ma dem ci sama gynécologue sama gynécologue xam nga la la ma mu ne ma sa produit yi ngay produit xeesali mu ne ko ah mu ne ma day joxe infection mu ne ma bu donc boo xeesal boo diwoo xeesal ba pare soo demee ci toilette balaa ngaa laal sa kanam dangaa war a raxas sa loxo ba mu set ba nga xam ni carrément li set na amatul produit nga doog a laal sa kanam mu ne ma sinon infection dalay yomb infection mu ne ko ah, mu ne ma dalay yomb mu ne ma jigéen bu nekk war na am seteyaal su fekkee da ngaa sangu ba pare nga leer na ne yow saabu saabu bi nga sangoo dafa am xeesal soo paree nga jël sa seteyaal raxas sa kanam doo a génn moom moo la mën a muccal mu ngoog euh, donc euh, ka kay defar ci boppam moo doon àddu ci loraange yi nga xamante ne mën na koo indi yaasin mm-hmm. mu mel ne euh, en tout moom wax na lépp Mm. donc moom moo koy defar moo wax li nga xamante ne jàngoro yi nga xamante ne mën na koo jur ci yaramu doomi aadama te également chaque jour on alerte et on sensibilise ci li nga xamante ne mooy xeesal loraange ak jafe-jafe yu mu mën a indi sa yaram ak sa wér-gu-yaram donc comme noonu la rek wax waa du bëri wax dañuy wax rek say su nekk di sensibiliser xëy na benn kàddu bu ñu yëkkati rek mm-hmm. dina am kenn ku mu tere au moins ngir mu bayiko té ñu ngi wax euh, ci li nga xamantane mo di cancer bi nek di def ravage actuellement mhm. di leen faté né cancer de la peau tamit bokku na ci cancer yi gëna metti léeg lek ñukoy wax euh sax né da fay dal ñi nga xamantane dañuy faral di jëfëndiko produit yoy nga xamantane da fay yaq suñu der bu baax euh di dugg bu baax ci li nga xamantane mo di mélanine bi di ko modifier bay Assane dégg nañu kàddu yi nga xamantane mën na né ay contre euh, yenn sa da nga dem pharmacie ñu jox la garab Mhm. bind ci garab bi li muy faj. Mhm. daal na nag garab bi de indi effet secondaire. waaw moom ñëw na ci effet secondaire xeesal bi. moom moom mi koy jaay. <laughs> man de mosuma gis bii moom maa ngi kaa mm, man maa la kaa jaay. Mm-hmm. naam ni mu ko waxee. Mm-hmm. mais moom nee na bu demee ci gynécologue danaan ko bala ngeen di kii nangam nangam. mais bu dee sens boobu la.

romb kalaasu Pa Assane gi ñu ne ko ñureet dem ak moom war ko dem jaayiwaat te fa muy jógee bu la waroon niñ kaa def rek ni muy dikkee nga taf sa gémmiñ daw yéeme na mhm. mais comme on dit la colonisation a bien marché mais suñu kii la ñu mhm. c'est extraordinaire. waaye parce que critère de beauté yëpp dafa mel ni sax boo niroowul ak ñoom mhm. xees comme ñoom am karaw bu gudd comme ñoom doo rafet alors que du tout léegi-léeg nga gis jigéen xaw a wat bopp bi rafet lool kaar mais góor góoru souvent pas Assane hmm. dañuy dénigré seen sœurs yi waaw den xamal ne que ne ku xees moo rafet ku am karaw bu mel nii moo rafet te ñun ñëpp dañuy wax ah, ne taaru jigéen sëy la loolu ñi ka ñi ah kooku nekk ak sa gis-gis waaye eh, jigéen ñuul na rafet lool sax mhm. tubaar fa kàll yàlla may ko xoolal yaasin kaar ah macha allah xoolal maam xujja xoolal ñoom aadalaay ak ña ca des kilifa yi ne fii xool leen rek taarfkal la ñoom ñoom kumba ak ñaam kumba ak ñeneen ak ñeneen mhm. kaar tumaani ki def tumaani mod mhm. euh, ñoom ndiira fa booy ak ñeneen ak ñeneen taarfkal siise ngaari ak ñeneen ak ñeneen taarfkal la mhm. ñoom fat saaxo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ka mu neex nag Nous wala donc c'est privé mhm. mais comme on dit nous ñun café mais tout est nuisible ça c'est sûr mhm. amana diw bi peut-être baxna waye mu mu mais surtout que koy produit et ce ne sont pas des professionnels en dermatologie. indi ci culture mu di culture moom am na. mais bu demee bay lore doonatul culture. Mm. loolu leneen la moom moom nekkatu ko. Mm-hmm. yooyu nag kilifa yi dañ cee war a jóg am na yoo xam ne day nekk sax indiscipline. Mm. mun loo gaañ nit ñi wala lor nit ñi mm-hmm. wala yàq nit ñi ci ci way sunu aada la non aada bu bu baaxoon fii diine ba mu ñëwee ba na ko fi. Mm-hmm. aada bu safaanoo baax nekk ci lu bon diine sib na mm. donc foog ñu.

C'est comme torero en Espagne. c'est hmm. une culture là. Hmm. ñun tam am nañ suñu yos. Hmm. c' comme làmb ak leneen ak leneen. simb gaynde mais simb kat ak yooyu waaw mais mais na rafet. on n'a pas besoin mu violent wala muy gaañe wala muy nañ ko na affaire bi dafa laaj nan laa ko mën a tuddee ci la rek. ca defin ba kasak amoon na. njulli amoon na de. am na lu taxoon ñu daan def nga am fuñ le yóbbu ci wàllu jom ak leneen ak leneen. bo demee à Casamance leul bi mhm. amna nuñ ko doxalé yépp ay aada la mais dafa téggu ci ci ci yar la yar lañ ci djublu mm. mais yar nak du lor waaw amna solo yar du lor benen loraange bo xamante askan wa ng koy dundu jafé jamono yi mu di jafé mm. jafé terre bi mm. waaye nak ministre bi waxna dépenses yi nga xamante mom lay lacc 700 millions suma djumul yassine Yacine bañ ko défaré 700 millions presque 1 milliard bañ ko défaré légui yagul ma indi la sa plat préféré rek on a mis tellement d'argent mhm. créé tellement de problèmes 260 000 familles yi ñu jële zone la euh, ma mhm. pour lui, tout ça pour ça mm. building administratif presque daanaka plus de cinquante milliards nga def ko ci. Mhm. ci koo xam ni ba ngay départ da nga ne woon dix-sept milliards. nga pare ñu la noo am na incendie yu ñëwaat ne la noo sept milliards lañ ci war a def après da nga su suñu administration suñu ay autorité suñu ay ingénieur ñi ñi def loolu mais mais avant ñuy estimer sept cent millions te tab na ma yàlla baal bu ma ñàkkee maandu boo xoolee ba ci biir ña defaat estimation ba boo demee mooy ña ko ña ko defaroon hmm. parce que xam nga bi day ñëw rek daal ne bon les services ministre si, xamul li xew service administration bi ñom ñoy ñooy jël boy diw boy il faut nga ñew xoolaat sa kii bi ah. oui oui mais biñ ko defaree xam nga on avait dit oui avenant yi ñu défon nangam lépp pour ropet ropet poste hmm il faut que ñu ñu ñu si comment je vais dire il faut qu'il y ait de la contrainte et surtout un contrôle prépondérant et sincère bo xamni mo moo xaalis dana génné mais sëñ bi bu génné na la leer dañ la évaluer su fekkee li nga defar baaxul. Mhm. sur 5 ans dootoo amati marché. est-ce que comprendre nga. Mhm. si vous faites un boulot on vous donne par exemple tu vas trouver je ne sais pas un entrepreneur nga jox ko stade Demba Diop ne ko defaral non mu defar ba pare stade ba daanu ci kaw nit ñi ñu mais kooku à vie waratuñ ko jox marché Sénégal. Hmm. bu ñu waxantee dëgg rek yàlla tax. Mhm. après après bon on va s'arranger entre nous lijjanti ko joxaat ko marché mu defaat la mu defoon parce que man Pa Assane bu ma ko joxee affaire bu jaaree ci moom dama si Amat, ristourne nangam nang yo yep sur facturation, terre bi ko facturé ba terre point bas ministre il dit point bas def technologique et technique pour le fonctionnement du terre, bu ñëwee Botifisk nga def mais non man. la Yacine dugalal sa question mais ak lu ñu mënti wax tamit euh, perturbation bi nga xamante ne teer bi am na ko jamono ji répercuté wu na bu baax ci transport Sénégal ah. actuellement. Mhm. parce que gis nañ ne tali léegi xat na. également gis man de maa koy yëg man. Euh, man mii tamit maa ngi mhm. koy yëg ñun ñuy jógee ba jam ñaa jógee te ñu ngi ko yëg bu baax a baax donc ak tamit. xaalis bi nga xamante ne dëggantaan moo ngi ko doon dugal tamit ci économie réew mi loolu yëpp tamit dafa naxas ban xaalis la maanaam terre bi tey ban xaalis la dugal impact bi ah dugalul transport bi. yow ngay fay presque <laughs> trente milliards. bor ko delloo tubaab yi xaw ma lan yow yow gis nga kii kii yow kii Yacine mm. Yacine daal car trafical il faut ñu def ñu ñu comprendre benn affaire xanaa xamoon ministre bi amaana loo xam ne peut-être du ko mën wax c'est factuel c'est fonctionnel il est il gère. il mm-hmm. administre parce que c'est son département.

ce projet de terre-là dont mon a parlé ici, c'était destiné à, au réseau ferroviaire national. Mhm. C'était un projet de 750 milliards de pour tout le réseau ferroviaire national. Nous avons 36 ou 46 km ba paré terre, à li. Mais c'est un crime. Mm. Crime le crime. les ñep case départ nous non, chaque année, on perd 100 milliards qui ont été embouteillés. Il faut qu'on trouve la solution d'eux. Et 100 milliards de perdre par acte. Si on a 600 milliards, on a fait double de ça. Mais il y a 100 milliards de perdre peut-être dans 10 ans. Et on a fait des petits bains terre sur 36-46 km. Si on a fait des bains de doy na donc euh, dinañu xol rek fal yeuf yi ndax euh, information euh, ça va dans ce sens dinañ leen ko indil mbokk yi lepp lo xamné rek ñel na terre bi usagers yi dinañ leen ci indil ay léral yu wër ñu nit mhm. jox ay mhm. ci li réseaux sociaux yi ci souvent dañuy ñi ci victime ci seen couleur u der seen xeesaay seen ñuulaay euh, waaye nag fii nii dafa mel ne Afrique lu ci mel ne sax Sénégal ba tey noonu ñuy valoriser der bu ñuul dafa xaw a des ci réseau yi nan la ñu mën a def ñun euh, utilisa utilisateurs yi ba nga xamante ne bu di shaming boobu dinañ ko wàññi bu baax a baax ci réseaux sociaux yi njëkkee wu ci réseaux sociaux yi sa de mais réseaux sociaux yi dañoo ñëw gën koo dooleel mhm. mais stigmatisation beeg yi ni mel ci biir famille la njëkkee c'est sûr que soit nga am jëkër mu la bëgguma nga ñuul dama bëgg nga xees que soit nit ñi ku nekk di les stigmatiser nan lan sa der bu ñuul bi da nga am lii da nga am lii foog nga xeesal pour am lii ak laa pour sa taar gën ak yenn foofu la njëkk a commencé et que nag internet bi tijji également porte pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar seen produit yooyu noonu nga xamante ne ñoom it dañ ko jàppee ne entreprise lañ yor biir Sénégal di ko doxal mais aussi ñoom ñi koy defar sax xam nañ bu baax ne li ñu nekk di defar nii danger bu mag a mag a ngi si biir te ñoom euh, conscient nañ ci loolu donc euh, c'est à euh, nous en tant que personne nga xamante ne ñoo ngi am xel di xalaat ñu xam aussi ñun euh, suñu wér-gu-yaram li mu ñu jaral ñu di ko def mais da ngay gis koo xamante ne sa mam xujja même cigarette bi ñuy tuux sa da ngay gis ne carton bi ñu ko defaree dañ lay wane la ne carrément boo ko jëlee consommé ko feebar bi mën na la si fekk te nii nga nar a mujjee malgré ça nit ñi dañ koy consommer donc problème bi moom affaire yi weesu na foofu mais comme ci octobre rose lañu nekk et puis ci waxu cancer la ñuy waxtaanee tey ji euh, vidéo bi ñu seetaan léegi ça montre que ne mën na dem infection mën na dem ba jurala li nga xamante ne moom mooy euh, cancer col de l'utérus te loolu nag ñaanaluñ ko benn jigéen mm-hmm. donc euh, interpellé nañ ministre la santé ak képp koo xamante ne rek euh, wér mbir mi laal na la à ce que nag ñu gën a cadré waat li nga xamante ne moom mooy réseau boobu noonu xool naka la ñuy def ba nit ñuy pro propager seen ay njaay ci réseaux yooyu ñu xool naka la def ba mën ko wàññi am na solo faw ñu indi li nga xamante ne moo di régulari réguli euh, daal di daal xoolaat maanaam <laughs> euh, réseaux sociaux yi ni nga xamante ne noonu la ñuy amalee doxin yi fa nekk lu ne lañ fay jaay te lu ne lañ fay wax te faaw tamit ñu jël ci ay matukaay bu ko defee euh, mu gën a daal di daal jur jàmm ci askan wi Yacine li ñu indil am na solo.